baada mawtika was awsa tusxiluhu dunia anka fajal xayaataka kullaha lillahi fa huwa alwaxidu allazi la yansa wa ahsin alaaqataka maa allahi fa huwa alwaxidu allazi la yafna kalaamun mulimun lakinnahu xaqiqiyun xakim bi nee na soo bëggee gis nu àdduna di mel sa ginnaaw faatu xoolal ba sa moroom faato rek nan la àdduna mel ci ginnaawam boo seetantalee dëgg danga gis ni soppe yi di fàtte seen soppe yi faatu woon waaye itam danga am loola leer nañ ñi ci nekkoon kat yow it mën na am sa soppe ba nga gën a sopp mën na laa fàtte bo faatoo war na amit àdduna yóbbu ak jotam soxlaal ko ba tax far dootu la talati kon nag sa dund gépp def jox ko yàlla ndax moom dong mooy ki waaye sa relation yépp jox ko yàlla te rafetal ko ndax moom mooy ki nga xam du jeex mu ne wax ji nag wax ju metti la waali bi metti metti itam moom mooy dëgg nag euh, wax ju doy waar la waaye ju dëggu la it te ñëpp xam nañ ko nag euh, kon nañu góor góor góorgóorlu ba biñ fi nekk te di ko mën te di ko tal ñuy bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala ndax bis buñ fi jógee nit ñiñ doon bàyyi xel mën na am danañ ñu fàtte même bu ci amee ñu la dul fàtte it ñi ci ëpp mën nañ laa fàtte loolu la xit mu bindi woon tey bu ñu fàtte nag benn yoon di julli ak sëlmal ci sangu-sang yi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñom ak saxaabaam ñi ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah